yow programme bi mom nan nga ci taxaw kon yeen yeen a ngi seen programme yooyu ba yow boy yow yow yow naka ngay doone teer xam xam nga man mom xam nga ci limay yëngu man place Cheikh Sow lay dem lelek di and ak mom mu may yóbbu may mako ma ay commande parfois ma dem fa mu jox ma wéccet ah kon xam xam xam nga yow man ko kon xam amna naa ci liggéey mais yow da nga doon teer bu mak xam nga ni ya ma def ni da mu rafet ni nga ma def nak la bëgg nu raw ni nga def mako jour programme parce que sëñ Modou Kébé moom gis naa ko tey circuit nee naa ko moom xoolal la neex nga ñaw mom kooku mom xam nga mais yow nak la bëgg comme style bi comme style bi ngay ñaw ni la bëgg nga ñawal mako ko programme ah? ah léegi naa yéen nu ngeen bëgg ma solol leen ci programme bi wala ah mais yéen saala yooyu ak saar yi ñaan yëpp ah yëpp waaw mais du mun tane nga ñawal man kese faaw nga ñawal ma de non ñaw moom garaaw dinaa ko def yàpp non noonu laa ci jàpp mais nag dama bëgg lépp lu ngeen def ngeen def ko ci yoon man seen yooyu ngeen nekk laa ci dama cee nekk ci lan lañ nekk ñun am programme di ko def nga ne ci lan lañ ne li nga xam naa ko doo def waaw mais booy bëgg ngeen teg ko ci yoon yow booy ngaa ko nga yow xam nga doo nee xaandal quoi yow ngaa ko nga quoi man dara lu lëndëm dama ko xamul waaye yow xoolal xamal la suñu programme bi papa ci suñu ginnaaw rek yow réservoir sponsor bi rek sponsor yi nañ ko teg ci yoon rek waaw waaw kii moom la kii lii daa sero seen ci si ñeent juróomi sero la li 500 de yow boy yow boy bi manam ben 5 ak juróomi sero ñaata la. 5 am juróomi sero. waaw. per loolu 500000 la. déedéet boy da ngay fen waaw juróomi téméré junni. e boy xol ma ngi lay ñuus kat loolu ku na la. wa yow tey ba ñaw la de 500000 la nga am a ñuus. moom la 500000 naxuma naxuma la bilay sëñ may da ñëmé lii sëñ may ñëmé ñemewutal. léegi de de sëñ may seek xam ngeen. mais maa ngi dégg doom. ku baax ndeysaan ay sëñ may mii su ma ko amut doon xaalaani ko ñàkk ko wóor yéen wóor yow daal xoolal. booy yow guddaloo fan. booy tey na ko tey jëmee na la. mais eh, waxuma dama lay wax rek. ñaar ngeen kii laa wax. tey gi laa wax waaw. mais eh, ko dama wàll de. ma xaw ma noo rëse nga ma koy rëse. seen gala bi moo tax. non paa bi paa bi neex na de. paa bi dafa soof quoi man paa bi rek laay gis. paa bi man man lay baña gis mais da xamul ni man mom rek lay baña gis. dan la ci dama waxtaan nak mom mu set non non dina ma dina ma laamal mais bo yow. yow soxla won na la sax ben ben problème bu ndaw rek bu ndaw rek wa wa wa parce que temps yi passé da nga fi doon expliquer sa ben histoire moy moy sa problème papa xamoko ko. dañuy waxtan rek parce que kii man ak yow ñoo fi nek kenn kenn nekkul histoire boobu non lu doon sa lu ne dafa doon suñu problème parce que ñooy ànd bon léegi yow bi nga defee recherche xool nga def nga déclaration gisoo ko fenn mais man gis naa ko sa non bu ree. merci ginnaaw maay Daalu Mbacke nag gis naa ko te soriwul la booy pas bii pas bii. waaw waaw ngeen per per per per per ibrat per per ibrat jahit tamami ya kan dia nyar mungkin kita pagi dulu lembur pagi beras kalau yang mayat deh ne enam teras boy kalau teras babe meli boy boy kalau boy motor yang lagi boy kanggalan lah ni do am bay di ko saga ne walju ki teras eh eh wa dingu man dingu ling may ni bu mu ko de bo demé sa moy sa dua que gis nga ciofel bi am boy ban noonu. sama noonu nga ko wax ndax yow boo gisee paa bi may wër sama papa nga mooy sa baay paa bi kenn xamul nu mu kii di fecc nga mooy sa papa. waaw mais sa papa ngay wër gisoo. ko waxat fii. booy xam nga la la man sa xarit laa sooy wër sa papa dama la a war a jàppale. loolu dama ko kafewul di fori paa naan sama papa la waxuma moom. ah kon kii da koo for. waay booy xam nga ñoo dem. booy. non ma def nii ko ndax bëgguma am ak yaa ngi sa bopp de en tout cas daal nañ njëkk na mujj bu ma fi nga wax ay bi kenn xamul muy nuru yaa ngi yaa lu garab bu ma ñëw fii mu boy teg maa bañ waaw dañoo dematu programme boy eh waay dama lay mbalak rek boy yow nag dangaa yow nag dangaa gaaw mer quoi boy wuy ma boy man boo dee réew maa la gën a diglu ma rek la wax ay boy sequma ko ak yow déglu ma wax la man duma sa morom xaw ma danga indi sag dancin xaw ma danga indi sag njuuma naan dégg naa la nga naan ko yaag Ibrahima Ndiaye tama da ngeen nuroo ndax du sa baay kon dégg nga may kon man da yor sama di wër comme ni sa baay ni koy sa day wër di def non. yow loolu nga per mbaay xale bu réewee lu ne dana ko dégg mais mais mais loolu war nga ko per mbaay yow tam la waaye yow ya, damaa sa per yow yow bu bon nga yow yow xolam perte et puis loolu bu ci delluwaat de boo to do dégg non dama lay wax do xam naa la may suma nga may lolek ay boy yo xamne boy booy xamne ne bi ko mu tok man xam nga ne mami yi dañ ni la ko tegon nga may rolek mo xam nga lan la non jublu ma rek bama pare man duma sam morom bo bëggee morom dang koy wut nga may rolek ay nit ñoo xamne xawma lu mu doon dang nga yaa ngi may dégg cinq cent mille yi nak bu fekkee ya, na mo tax ngay jéem duggal ay bit yi rek

fii laa la fekk nga yor sama njàmpe di ca fóot muus naa la leneen lii ñëw nag xam nga ko Père moo ma tooñ quoi yaa may dégg yow kay bu yow lan jaawale yow mi génn askanu ngéwél yow lan war a jaawale yow xamante ni daanaka fi ne yaag baabun yee ca pàkkaan yéen a mi daal moom nga bañ ko nga nangu ko sa doom la yow yaag bolo yi yéen a yem yow dan la yow dan la abar la abar la abar paa bi paa bi dama koy dama koy rey rek gas ko suul ci diggati bi loolu rek laay def mënoo wax a wax ba duma la rey yow loolu moom mënoo wax a wax ba duma la rey yow la suul la ceeb bi waaw non paa bi faaw dama koy posone dama koy posone daa bëgg lekk dama koy posone mu dee waaw.